محمد سليمان في عن مزيادي كيما تقود زيما ملو زيادي محمد سليمان في عن مزيادي كيما تقول لازما من زيادي أمنا لتتدخل في حسن بعجتي ووجهت للعداء يا بالمبرد أمزت دائما أسعى صدقا وعاد بعقبادي تغدني وادو لني جوائزها وتاتا ليدعو دي بالمشاهدين لكن مين في المقالات كان الموائل tubaab yi bind wax ne li may wax mi ngi ci archive nationale livre bu ñuy wax Cheikh Ahmad Bamba face aux autorités du colonial bind ne le novembre 1902 Ahmadou Bamba revient au Sénégal honoré de gloire contrairement à ce que croyait le colonisateur Le prestige d'Ahmadou Bamba a considérablement grandi, aussi la période la plus difficile, la plus critique et la plus dangereuse de la vie du marabout commencé un projet. keroog keroog kenn xamul ba xam Sëñ Tuubaa ci batam 10 heures ba 3 heures li may wax sëñ Moodu Maamun Mbàkke moo ko nettali sama baay mu wax nee na maam Cheikh Anta nee na ko 10 heures ba 3 heures gaal gaa ngi tëju keroog murit boo jox kaas witu ndox du naan. ñëpp jaaxle tubaab yi rëkk 21 këru lu toog ba yàgg ci 10 heures bi passé ba tubaab bi daal di yónnee samp benn échelle ne où est Cheikh Anta ne ko maa ngi keroog maam Cheikh sax dem na ba ne grand mbubb ba xam bu ñu gomee la sol waaye nee na li nit ñi di jaaxle jaaxle léeg-léeg gis jàmbaar ji ni woon fii Cheikh Ibrahima Fall léeg mu dox ba laal bato bi ne ah sëñ Bamba namm ko ab diir maam Seex Anta dugg ci bato bi di seet sa maam bi tubaab bee jiitu ma topp ko nee na mu toog ba yàgg mu ne ko fii la ne mayoon na ko fu mu ko fekk nu nee bi ma nee ubbeet bunt bi gis ko mu taxaw ca koñu gaal ga tuuti ba yokk sept ans neuf mois tegut ci tegaluñ ko ci Sëriñ Tuubaa kun koy tëkkaleel ndax nan la maam Cheikh Anta Raam uti ko dal di jooy mu ne ko Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko bul jooy waat naa wàcc naa wàccaale ku ma yaakaar Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko tukki bi metti na waaye waxuma fa lu leen di xëy bi ëllëg mu ne ko Mbacke mu ne ko sama tànk yi bañ ma ko toppaat Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko bu yowmal xiyaamee di ngeen xam ne tukki woon naa inna muddatalati maatuqa fi Congo mada wa sa yassaruka yawma tubla saraay cheikh mu ne ko mbàcke mu ne ko nasaraan bi war naa ko loo xam ne du ko nettali ku yàlla bind maam Cheikh di ko ganale fii keroog mag ñi la jox ay karabin lu ne mu rey ko nañ ko ay kéwél dugg àllu bi ñi dugg fu ne lu ne mu rey la pap njaboot gi yëg tey ñu def ko tey ci ay seen xolo seet keroog maam Cheikh Anta dane lu ne faatu na ba mu des mbaam ñu ne ko mbaam yi kuy xéwloo mun a jox leen ko tan war nañoo yëg ne sax suñ Tuubaa ñibbisi la. Mor Lissa ñu ngi lay nuyu xamal ne am na mbégte lool ci teew si yi nga xam ne teew si ko ci biir njaboot bi lay war a mbégte ne mbégteel nga na ko ci fànn bu ne ndax képp koo xamante ne aju na ci néeg yi nga xamante ne ñoo fi dajaloo mën nañoo wax ne kenn desul. ci néegi jolof yi yëpp suñu kër maam Sidi Ndiaye fi la ñu yendu suñu kër maam Baba Lissa fi la ñu yendu kër maam Mor Lissa waxuñu ko ah, bokki jolof yi daal am nañu mbégte lool ngir ñëw dalal la fii Pape nag wax ne lii du tey rek kóllëre la ak taalibe boo xamante ne yàgg na lool tàmbalee ca maam ya ba ca wajur ya li ci mujj rek ñu mën ko mën a waxtaane mooy diggante Cheikh Mamadou Fadil ak way juram Baye Sidi Ndiaye ku ne xam na seen diggante na mu meloon ci ak bokk akuk taalibe ak soppante akuk wolonte ba tax na Pape Mor bi wax na ne jataay bii seetaayu tey bii xam na ne mooy jataayu Serigne Fallou ci moom mooy jataayu Cheikh Mamadou Moustapha itam ci moom mooy jataayu Serigne Bara Khoury yi ci moom mooy jataayu mbooleem mag ñi nga xamante ne wu nañu ak Maam Mor Lissa nekk fii moom ci Mbàkke ci nekkin wu rafet kon Serigne bi lii la Maam Mor sa waxoon ne na la ko jottali xamal la ne daal kër Alboury Penda kenn desul ñëpp woo na leen xamal leen ne bis bii su mbégte la ci moom ñëpp teew nañu kër Maam Alboury Seyni bu ñëpp teew nañu kër Maam Baba Lissa ma ko waxoon kër Maam Mor Lissa kenn desul daal kon daal sëriñ bi ci gàttal moor daal nee na xolam sedd na guyu xelam dal na lool lii rek nag mooy li nga xamante ne moom lañu ñu yittewoo muy waxtu wu ne di xentu ak taalibe kon sëriñ bi bokk yëpp ngi maas di wane ne am na ñu lool lool lool lool lool ci sa teewaay bi di ñaan yàlla nag yàlla na yàgg lool lool lool def ko ay at yu bare bare bare bare bare bare te suñu borom sàmm la te la mu ñu la ñaan itam nga ñaanal moor i bokkam suñu borom sàmm leen te musul leen lépp loo xamante ne yóotu nañu suñu borom defal leen ci lu koy yokk wax ji daal euh, sëriñ ci ay yitte waaye daal na nga xam ne daal euh, soxna maama mi ma nga bàyyi si kër ga daal kër gu bëggee daal moom nga fekk si waat fii rek ndax wax naa ko sànq ma moor ni ñu demee loolu ah, gàtt la bu dee ci wàllu way jur mu góor mi Mbaye Sidi soxna Ami ñu ko jur ak maam laal mi jur seen benn baay bu dee ci wàllu yaayam itam ah, maam Moodu Alsaan mi nga xam ne moo jur way jur jigéen moom maam laal la ñoo bokk benn baay loolu di bokk boo xamante ne moom la Cheikh Mamadou Fadilou xamoon ba tax na daawul jëfandikoo lenn ci Baye Sidi loolu da koo jaar ci Serigne Cheikh Thioro Mbacké ci nekk rek sànq ci euh, lii moor def ak sëriñ bi lii nga nu defal ci ak bokk ak ub taalibe bàyyi euh, siidi bis ñi nga xamante ne ci la wàccu liggéey yàlla dafa dogal keroog dafa siyaara ji moom sëñ Abdou Lahad jóge fa dem sëñ Abdou Khadre ba nga xam ne siyaara na ko mu naan bay tàggutoo waxtu timis mu ne ko ndax gëj ngaa gis Cheikh Thioro mu ne ko waaw xaw ko na nga fa jaar seet ko ndax jokk bokk dana guddalu fan moom it mu génn daal ne ki ma àndaloon ah, Cheikh daal gëj naa ko gis gëj gis ko xam ne damay dem ci kër bi bu subaa ma wut lu ma ko andi ñëw siyaare si ko ah, yàlla dogal bi mu ñëwee kaasu ba brandi attaay ba mu taal wër euh, ba ñaareel ba ca la suñu borom yóbbu ak room maanaam nga xam ne kon sëriñ bi xamoon na ne jokk bokk rek moo mën a fànq li li jublu si ci moom moo tax mu ne ko jaaral ci sa mbokk nga jokk bokk ko kon moor lii nga def sëriñ bi nga defal na ko kon suñu xel set nag baax suñu xel dal na ci kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom sàmm la te taxawu la nga yàgg fii ñëw yàgg nu fee fekk yàgg laa teral lépp lu ci moor def nag xeeb na ko kàddu yi nag moom dañ ko doon ubbee rek bopp yi waaye daal sëriñ daal na nga xam ne suñu xel xol sedd na guy suñu xel dal na euh, suñu xel suñu xel daj na bu ñu doon làmb daal dañuy wax ne daj na kon daal ñu ngi ñaan yàlla ñu yàgg koo teewee ay at yu bare bare bare bare bare bare te nga ñaanal nag bokk yolof yëpp kenn desul nag maanaam ni foo ci xalaat rek ñëpp ñëw nañ teew si kon daal ñu ngi lay sant te di la gërëm te di la ziyaarati la balu àq asalaamaaleykum kaddu yi am na solo waaye moom mi ko wax moo ko gën a ko lool waaw ndax bu ma ñëwee ku mel ni Mor Lise mi ñëw fekk moom nekk fi eh, Mor Lise baax na loolu la def sonk tey waaye moom du tey am ñu tey yooyu def te nga xam ne maa moom la ko seq ak yàlla li lii di rëy rëy rëy loolu la ko ci lépp lu muy def te xam ne kenn du ko yëg ku dul yàlla moom ak yàlla bu ëppee bis bu mel ni wala moo lay xawal ne bis bi lu wér ci moom ndax mu wérutoon ci moom kon la muy def te di ko wéet te ni mu di ko def kon lépp da koy dajale ci bis bi wane ko lépp waaye la tax la ëpp du du kenn du ko xam ko du baax moom kon mooy wane ne bis bii lim ci bëgg mooy ma ñëw fii ci dëkk bi daje fekk ay bokkam bu baax baax bi mooy xam na ne kër kër Sëñ am na lu fa nekk te loolu fa nekk xam na ne euh, mu ngi mu ngi mu ngi fi mu ngi dox ndax ñu ngi dox ndax sunuy kilifa jaar nañ fi ñu mag ñi am nga mag ba wane fa wane lu bari maa ngi fee kilifa yoo xam ne kilifa lañ ñu ngi wane lu bari ci dëkk bi ak tudd sax dëkk bi waaye xam na ne may itam am na ci lu ma gànnaayoo te bëgg na noonu ak liggéey lépp moom mu boole ko ndëkk bi jëriñu waaw kon nag maa ngi lay gërëm waaye ni ma lay gërëmee nag noonu waa dëkk bi bi nga xam ne yaa tax na ñëpp noonu la war a ndax li ma li ma wax léegi ci njëlbeen bi rek ñëpp dëkk bi ñëwuma ngir wut si fii dara ci lu may jëriñoo loolu dara ñu waxuma yow waaye ku la jege rek man cee man cee man cee jëriñ ku baax la ku baax a te man Ah, wax dëgg yàlla lu ma wax ak wax ak ngi dara loo xam ne dama cee jublu naxanteeg moom te wanuma li li ma koy wax amul kenn koo xam ne kii mën naa ko ne baax na te fekk waruma kooku ragal la wala sopp la wala wala ak sama ñàkk di te ma loolu ma lay wax lu wér la ci man te li tax ma di ko wax it mooy bëgg nañ ñu ñu ñu bari di la ci roy ndax li ngay def am na solo ci jamono bi léegi nit yi dañoo euh, mel ni lu gërëm ba alal sànq leen ba fi mu ne lu baax li ñu war a def sax ak li ñu war a bañ sax daanaka dafa mel ni xamatuñ ko léegi euh, moo tax nag ñu wax ak ñoom. ci wala ku ni yow ñu ngi ko lu baax la kon nag yéen ñëpp maa leen nuyu di leen xamal ne ñoo naa fi daaw ak daaw jeeg euh, ba xale yi nga xam ne ñoo defoon taxawaloon mbooloo mi euh, ñëw ànd ceeg obligé muy dem ba def ba bis bi doon bis boo xam ne mën nañ ko tuddee bisu Pape Pape mu def fii kat rëy na rëy goo xam ne waar euh, kon nag euh, maa ngi ñëw ngir moom war maal ko ak màggal ko ak wan ko ne lu baax li ngay def ci man di ko def ci ñëpp gis naa ko jaral nga ma jóg loolu mooy mooy sama ñaar bi fi tey euh, su ko defee nag yéen yéen ci def tam maa ngi leen bu baax xamal ne na ngeen gën a góorgóor bu baax euh, fii Touba mooy mooy Mbàkke mooy Touba Touba mooy Mbàkke kon nag yéen ñi dëkk Mbàkke bis bu nekk da ngeen jàpp ne euh, yéen te loolu it moo am <laughs> bu ko defee nag ku dëkk Touba nag defe naa ne war naa xam nu mu war mel bu baax ndax loolu am na lu leen ko mën a wan gis nga bu màggal bu ñëwee euh, avion yi fu ne ñu ko jóge di wàññi seen paas ñii dugg saxaar yi ñëw ñii dugg ci oto yi ñëw ñuy sareet yi ñu war mbaam ñu war fas am na xam ne sax ñoom liñ ci war a teew dañuy fetal rek dañuy jàpp ci mbooy gi rek fuñ xam dàkk daaw xam ne xam ne fii la Tuubaa féete bu tatuñ jaaree noonu di def def ni ba dugg Tuubaa loolu ñëpp gis nañ ko may wax man ñëpp xam nañ ko waaw léegi nag loolu yow bu amee ku të ku tëdd suñ suuf si moo moo waral ñuy def noonu wàññi e, e, e, bi yeeg lépp fi dëkk doo xam loolu loolu xam bu baax waaw man nga ko xam bu baax lii adduna bi bépp di wut si bisu màggal fii yow nga far fa dëkk ah war ngaa xam ne ku foor nga ku foor nag warta def yi fooradi xool fu lu mu def rek day dañu war a mu gi sax mu ngi jëkkee ba naa ko mu bind. foofu foor melo yi nga xam ne dafa jaadu ci ñu am ko noonu. ndax baax ak melaw baax fépp la baax waaye ku dëgg ko sëñ Tuubaa daal wax dëgg yàlla war ngaa xam sa bopp bu baax war nga ko xam euh, bis bu nekk dégg ko sëñ Modou sëñ Loïm li ma doon wax ne léegi sax sëñ Modou wax na fi lu ni mel sëñ Modou bu seen hmm. am na bis mu wax fi ne buñ daan lim ñi gën a ñàkk ci àdduna màkk ci la bokk bu njëkk waaw bu ñuy lim ñu ñàkk ci la dëkk yu ma ñàkk yi ci lañuy ñuy boole buñ ne benn ñu ñàkk mu ne léegi buñ dee lim ñi gën a woomal boo benn ñaar ñett ba nga àgg fukk rek boole ci màkk waaw bu ñu daan lim ñi gën a ñàkk màkk ci lay bokk ñu dem ba bu ñuy lim ñi gën a am màkk ci la ñuy bokk sëñ Modou ne loolu nag dara waru ko lu dul baax ka tëdd ci service bi moo tax mu ne kon bu nu amee nuyu itam baax ku mel ni kii suñ suuf si bu yóbboo nuyu séntu ne li dal waa màkk dana lu doon loolu sëñ Modou wax na te sëñ Modou wóor na ma ne lu ma wax noonu am. lu ma kooku moom xëy na ñuy ñuy koy wel waaye man xam naa ne lu ma wax. ah. waaw bu dee nag loolu ku ko yàlla defal da koy fonk da ngeen ko yar yi ak teggin yi ak wax ci rafet yi ak ba bàyyi teqalante bi. ak ñaawalante bi. ngay toogal de sonn may wax yaa ngi nu làkk toogal. man de déedéet. ah am na ku la wax nan wërilee ñoom. nan wërilee xool. waaw. Ah. nee na ngeen wërilee xool moo gën ngeen may toog la. waaw macha allah waaw baax na jërëjëf ngeen góorgóorlu bu baax mooy mooy li ma leen wax léegi rek ngeen rafetlu jikko yi te gën a baax rek. waaye baax yàlla moom. te Pablis ñu ngi gërëm di la sant di la ñaanal di ñaanal sa bokk yëpp sa bokk yi liñ def rafet na nga am bis ñoom ñëpp luñ jàppoon ñu bàyyi ko ñëw fekke si bis bi loolu loolu dafay wane ne fonk nga leen di ñoom fonk ne loolu loolu rek wane kon suñu bëgg daal maa ngi leen nuyu moom léegi la fi ñëw. waaw mi ngi dem ba tey. ñu ngi nuyu di la ñaanal bu baax. nit ku baax ngay def. boo xam ne ci lu baax la ñu am. kon nag jërëjëf. tàllal leen loxo yi. bi sëriñ bi wax sëñ Galas Kaltoum mi ngi nii toog sëñ baa ngi tàllal waaye taalibeeb sëriñ Tuubaa su bugaan gay dani accident amin Mbàkke gisuñu sëñ Modou Bousso Dieng yow la ñu gis la mu waxoon nangu ko في كل ما سنات على عقل معي بين العديات فكيف ندعى من سوق واسدات حسن الوزائد طرا والوسيلات